naa def la ma tubaab bi wax ah. naa jël verre yi te takk jarul ma ko fii denc. Eh, jaral nga ko fay denc dëgg la dëgg la dëgg la. dëgg la. Eh, njóobeen ba na mu def. ah. njóobeen ba mu def. njóobeen ba mi ngi ci jàmm alhamdulilah. ah yal na yàlla yokk eh, jàmm moom yàq jàmm ah. jàmm Sénégal. allahumma amiin ñu bokk ko. Ah, waaw. thème thème bi ma ci dugal. waaw. mooy euh, lii jëkku ci léegi. du tey. dëgg la. Euh, li ma lay wax ci dans les années quatre-vingt. quatre-vingt. waay. am na benn am na benn entreprise euh, affaire ci Sénégal naka laa koy assurance la woon. waaw. bu ñu daan wax AGS. AGS. mas na fi ñëw. Euh, di jox yu mel nii. <laughs> affaire assurance ak affaire kër euh, yu mel nii daal. dëgg la. Euh, ñoom dañ la daan wax nga dugal sa xaalis. Mhm. bu amee ñetti at. waaw. léegi boo bëggee ñu defal la ko assurance bi. Mhm. wala boo bëggee comment ñu kiyal la ko nu mu tuddati dugal la ko ci ci prêt. wala dugalal la ko ci affaire kër. kër dëgg la. Euh, kooku ba ma ko defee. Mhm. ma ne ko man aw jotu ñoom nag dañ ko daan jaarale ci bank dañ ko daan jaarale ci banque dañ ko daan jaarale ci banque banque bi ngay jaar ci banque bi ngay cotiser. Mhm. Euh, ma ne ko man aw ma jotu di def yooyu. waaw ma yéen a gi ma yéen a gi ma am ci Sénégal. mooy. au lieu may jël sama xaalis di ko dugal ci banque yi fii. ma jox leen ko moo ma gënal. Hmm. ma ne ko cotisation bi ñaata la mu na ma weer lii la. waaw ma ne ko man mënuma ci yooyu léegi dama la koy def globalement benn cotisation at ma jox la ko. Hmm. ma jox leen ko ngeen dugal si banque bi après nag ngeen jël dugal banque bi ngeen jël seen prélèvement. dëgg la. jox leen ko muy quelque dans l' époque ay 300000 defe naa la woon dans dans dans l' époque. 300000 waaw à l' époque ay ay ay année 89. 300000 par mois wala. Euh, non non non. Euh, globalement boo ko calculé bi yëpp. loolu la à la lay jox. dëgg la. nga defal ma defal ko chèque bloc defal ko chèque mu dem. Mhm. daal di retiré chèque bi yëpp noonu. waaw. defu defuñ lenn ba jii. déedéet. may wax nit ñi nag. Hmm. nit lu mu def rek damay tënk wax ji nit lu mu def rek. Hmm. boppam. boppam man boobu ba léegi boobu ba léegi mënu ma teg sama tànk Sénégal. déedéet kay. wallahi wallahi ban année la. année euh, benn yoon diggante boobu benn yoon laa ci dem Sénégal mooy année bi ñu tegu dem gisee moom. Hmm. mu may làkk ay mu may làkk ay daar daar kaay ñu jaay la kër bi ay an mari am nañ ci kër kaay ñu jaay la naa ko mën a ko bon baax na. bëgguma est kooku tey jii damay may ay mbiram hmm. nee nañ ne kooku day jóge na foofu ba am na beneen kii bu mu demoon mi ngi ci kaso bi wallahi du ci jaas voilà moom laa leen moom laa leen bëgg a wax rek mais yàlla hmm. gëmul nelawul déedéet lu nit def lu nit def ci àddina hmm. boppam bu ko gisul ci allah kulli aal mujjee wax. bu demee ma ngi koy xaar. dëgg la. dëgg la na sama papa doon wax. Mhm. xaalisam dukk ndax. dëgg la. dama ci sëriñ dama ci sëriñ mu ne la defal defal ma. Mhm. ko lii lii laa bëgg mu ne la lii ak lii la. Mhm. nga jox ko. waaw moom bu la naxee. waaw xaalis bi la leew doom du la nax. dëgg la. waaw. naxu la boppam la nax. ñu koy def. Hmm. allah kulli al allah kulli àll muy àddina àddina àtte leen muy alaxira moom boobu moom kenn waxaatu ko. wallaay loolu moom leer na nañ. Ah. loolu leer na nañ. loolu loolu laa ci laa ci bëggoon a yokk. am na solo. Eh, dellu dellu di leen ñaanal jàmm. amiin amiin ñu bokk ko. ñoo ngi fi lu fi lu fa lu fa lu ci am rek lu fa am rek ñoo ciy teg suñuy bët. dëgg la ñoo leen di déglu. dëgg la jërëjëf. nuyul ma sëriñ bi. dana ko dégg incha allah. nuyul ma Pape Matar Kébé bu baax. incha allahu taala dina ko dégg. nuyul ma sëriñ euh, maam Anta ma fa toogoon. ndeysaan jërëjëf waay jo. nuyul ma nuyul ma ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. am na solo am na solo. ñoo ngi ci mais xel mi jógewul foofu. dëgg la wallaay dëgg la. ñu ngi fii picc nga ca kaw xel maa nga ca suuf loolu la ñuy dund ña nga bitim réew waaye seen xele a ngi ci Sénégal ba tax na ñu ngi leen di jëfal di ko ñaan nag na dellu wat euh, Sénégal bu baax a baax ndax nag yàgg na bitim réew di ko ñaanal képp koo xamante ni yaa nga réew di ñu seetaan wax naa leen ne tukki aayul yàgg caa aay waaye nag léeg-léeg nit yàgg àll te la koy tax a yàgg la mu dund la mettit ba muy am moo tax ba léeg dafay découragé ci réew mi waaye nag ni ma leen koy waxee rek. am na ci loo xamante ni euh, genn wàllu kasara gën kasara te nag dem bitim réew farfalang benn yoon kooku kasara dëgg la genn wàllu kasara gi mooy ñàkk sa alal waaye nag di jéem a dellu siwaat di jéem a seet noo xamante ni noonu ngay def ba amaat ko kon yàlla na yàlla sàmm leen jàppale leen yiir leen waaye wax naa leen ni éléments yi ñett la balaa may jëlaat kenn le temps temps bi jeex parce daanaka jeexal nañu nañ ma dugalal élément bi su ko defee rek ñu xool ko tuuti li nga xamante ni moom tamit ñetteelu soxna bi dund na ko su ko defee ñu daal di tàggatoo ak yéen joxaat leen rendez-vous suba ñu dellu siwaat àndaat ak yéen suba nag du leen indil invité ndax lii dafa nekk cas boo xamante ni benn semaine doy ci bëgg nañ ko gën a yaatal dalal ci ay nit ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci loolu waaye képp koo a jotaat suuf mi tam boo ñu contacter dinañ la dalal ci li nga xamante ni mooy émission bi su ko defee rek euh, mu doon loo xamante ni ñu bari dinañ ci jariñoo kon tegal leen ma élément bi ñu seetaan ko te dellu siwaat def nañu yëpp suñu xaalis bi li mu ni mu waxee woon defewu ko noonu versé nañu nag suñu xaalis ba pare gis boobu ba léegi gisatuñ ko déggatuñ ko waaw suñu talon mandat yi li mu waxoon nañ ko versé ci banque banque bi versé nañ ko boobu ba léegi mu ngi nii gisuñu ko dégguñu ko ah mu xam xamuñu si xamatuñ ci moom dara dara dara dara dara dégguñu ci moom dara dara dara dara dara ñun nag confiance bi mooy li mu bi mu ñëwee fii ànd ak eh, kii banque fële habitat bi. moo tax moo moo moo yokkoon sax suñu kol suñu confiance ñu ñu yor ci moom ñu am ci moom confiance waaw ñu wet suñu xaalis ci moom ci banque bi ne woon nañu sax bu dee toog nañu ba bëggatuñu nañu nañu kii nañu wax ñu delloo ñu suñu xaalis bu ñu bëggatul suñu versé ba ñu yem ci ñu ñu toll ci ay diggante waaye loolu yëpp ndeke ay du dëgg daal ndeke loolu yëpp du dëgg waaw mu ngoogu daal ñu ngi ñaan nag ay ndimbal yéen tam su fekkee ne am na lu lu ngeen ci mun ci ndimbal ñu ngi leen ciy ñaan dafa ne woon nag 6000 euros bi soo versé soo soo jotee versé 6000 euros bi dana dana la defal say kayit mu jox la kayitu kër gi ak clé 6000 euros bi dañ ma ko joxe sama doom yi dañ ma ko joxe woon ma pour ma demee ko màkk yàlla dogal nag fekk ci fekk may pare dem Sénégal ndax dama amoon samay doom yu yu takk jabar ma ne léegi comme noonu la année bii duma mën a dem léegi xale ñu ne yóbbul eh, jox ko versel xaalis bi ci ndax soo demee nga mun a gis kër gi léegi ah, beneen année incha allah nga ñu ñu kiyal la ñu pare la nga dem waaw versé nañu nag ba léegi mujj maa dem màkk aw ma kër te loolu yëpp asi asi saal moo ko ne mujj ma dem Makka mujj ma am kër te loolu yëpp benn doom aadama moom ko def mu doon lu doy waar doon lu yéeme eh, loo xamante ni wax dëgg yàlla eh, foo ko natt mettit ba weesu na ko waaye nag eh, ni ñu leen ko waxee rek ñu ngi toog di xaar yàlla jël nañu lépp jébbal yàlla en tout cas ñoom koo ci wax rek mu ne baaluma ko moom baal moom mënta fexe fexe fexe ba mu am bu nit ñi baalul nag xaw ma fan la ñuy fayee ndax ñii dix mille euros ñii six mille euro kee cinquante millions ka ca États-Unis vingt quatre millions loolu yi fan lañ koy fayee yàlla rek xam kon dina nekk mbir moo xamante ni mbir mu naqaree lijjanti la waaye nag ànd ak lu mën a xew rek ñu ñaanal leen yàlla ñoom ñi nga xamante ni mbir moomu daf leen dal yàlla may leen xolu te yàlla wutalaat leen leneen soxna si nga xamante ni moom tamit sunu shérif bu baax bi ñu koy ñaanal yàlla. barke ba ca maamam yàlla na ko ci lenn dal ehm, ndax sëtu yonent bi la sallallahu alayhi wa ehm, ñu ngi koy ñaanal yàlla daal yàlla na ko yàlla may wér ba mu dem ca bërëbu maamam boobu mbokk ngi noonu ci ligne bi ñu jël ko allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum asalaam. mbokk na ngeen def sant bu wér a wér a wér. alhamdulilah ñu ngi ñu ngi leen di bi quoi. ñoo ngi ñu ngi kontaan ci yéen. parce man maa ngi oote Europe quoi. Europe naka waa Europe. ñu ngi fi ñu ngi ci jàmm alhamdulilah. alhamdulilah ay ca mbokk yow rek li ñuy déglu. voilà parce que man dama bëggoon a participer ci thème bi ngeen développé tey. Mhm. mais surtout ñun ñi nga xam ne ay immigré la ñu te ñu dëkk te nekk bitim réew. waaw. donc euh, non seulement ñun du particulier ñi mooy soxal mais surtout c'est-à-dire am na ay sociétés immobilières yi nga xam ne état bi moo ko moom. waaw. donc euh, man li may bëgg a wax rek moom mooy cest à bu dee di ngeen mën a invité cest à benn responsable SICAP. SICAP. waaw SICAP SA. ndeysaan. voilà ngeen invité ko ci plateau bi comme ça mu mun a cest à population bi surtout ñun ñi nga xam ne dañ ko am ay ñu jënd ça fait plus de cinq ans. Mhm. ci benn projet bu ñuy wax terrain viabilisé à bâtir sur le site de Kër Massar. Kër Massar waaw. donc c' est à dire ñu su gën a bëri parce que parcelles yi dem nañu ba 3900 parcelles yooyu. Mhm. nit ñu tey nañu seen xaalis au niveau de la banque éponge nañu. waaw. mais mënuñu fexe tey ba am terrain yi quoi. donc côté côté côté yenn yi nga xamante ni affaire kër la te état bi yor ko itam même problème ngeen ciy dund. voilà même problème bi lañ ciy dund donc ñun du ñu bëggoon xam parce que à chaque fois boo wootee ci gàpp ñu ngi ci euh, mhm. boobu ak léegi ñaataat la. ça fait presque cinq ans. léegi yéen kon fan la nit di muccee nag laa bëgg a laaj man. ah. ne fan la nit di muccee. Euh, fan la lan di mujjee. fan ngeen di muccee yéen comme bu ngeen joxee mbokk mu lekk bu ngeen joxee jàmbur mu lekk bu ngeen joxee état mu lekk fan ngeen di fan ngeen di amee. résultat voilà justement parce que moom mooy suñu problème bu rëy bi parce que ñun yaakaaroon nañu stagiaire avec l'état là. Hmm. yaakaaroon nañu peut moom mooy gën a am su quoi par rapport que boo ko joxee particulier. et mooy gën a leer sax ngeen di jàpp. voilà donc parce que yooyu ay virement bancaire ngeen ko def parce que tous ces virements bancaires da nga ko def mais booba léegi mënuñu fexe ba am suñu leer. cinq ans. donc man c'est-à-dire man li ma bëggoon moom mooy au moins ngeen oo benn responsable mu toog si plateau bi war a wax si terrain yooyu quoi sa terrain yooyu fu mu toll. xëy na du ñàkk ñoom ñu ngi ñuy dégg ndax suñuy connaissance nag euh, malheureusement yeggul ci ñoom. waaw mais xëy na ñàkkul ñun ñuy dégg kenn koo xamante ni mën na indi ay leral même bu dul sikap mais mu nekk benn structure boo xamante ni dafay jaay ay kër. du doon publicité mais dinañ ko indi fii teg ko mu leeral mbir yu mel noonu loolu itam dina ci baax. voilà dina ci baax parce que xam nga te moom téléphone rek la am c'est-à-dire bon moom boo ñëwee c'est-à-dire même boo ñëwee c'est-à-dire ay un mois nga fay am cest boo demee dañu lay wax rek ci li en cours mais boo leen waxee ni sax exactement terrain bi fan la nekk dañu lay ne rek côté bële la nekk côté Kër Massar la nekk. te foog nga ñibbi ñibbi waat sa dëkk parce que da nga yor liggéeyu jàmbur di ko liggéey allo. waaw loolu dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la émigré bi dafay ñëw vacances kese. mais bu ñëwee bëgg a lijjanti këram wala dara moo xam ci mbokk wala ku mu mënti doon demal tey ëllëg si biir demal tey ëllëg si noonu nga koy jàppoo ba ñibbi jot dangay delluwaat parce que dañ naan yomb nañoo naxanteel donc pour ñu ñëw ñibbiwaat dafay yomb kon nañu naxanteeg ñoom ba ñu ñibbi fan la ñuy mujjee du ñu mën a bàyyi seen liggéey boobu nga xamante ne moo leen joxoon teraanga ji ba ñu jënd ci kër di ñëw di lijjanti si loolu te vacances bi ñuy am xëy na peut-être temps bu gàtt la mënu cee sotti kon loolu itam dafa nekk métit man li ma jàpp daal émigré bi moo sabab waxtaan bi parce que liñ leen di teg dafa metti man li ma ci gën a metti mooy ñu bari dañ ñu koy réclamer ah, invité nga Mara Sangam ba ma ko wooyee dafa ne ma naa ko dugalal kan laa koy yóbbante sama frère wala dara wala ma wut ku ma xam ma yóbbante ko ñu ne déedéet mandat ko moo xam ci fii la moo xam ci fee la nga yónnee ma numéro bi soo ma yónnee numéro bi su ko defee bu ma ko relever rek daal di koy mën a jëli incha allah defal la sag ñaan te nag wax naa leen ko lu bari lañ leen di laaj léeg-léeg nga gis koo xamante ni lim lay laaj day ay ay jur ak ay nangam sangam ki nekk bitim réew nga laaj ko ak jur loolu mooy mandat ma waaw léegi mu mandat la ko yónnee la ko nga jël def ki sa gafaka lekk loolu yëpp dafa bokk ci escroquerie wàllu kër ak wàllu émigré bi li nga xamante ni moom lay dund ñu mandat la xaalis nag yónnee la ko. ki la ko mandat boo moytuwul keroog ba mu la ko mandat lay ca lay lay mujjee jot lu bari dañ ñuy woo fii di ñu ko réclamer moo tax buggatuñu dugg sax ci détail yu émission yu demee noonu kon émigré bi nañu yeewu wax naa leen téléphone ngeen am sart c'est rek waaye nag yor sa téléphone gis nga diw ci télé bi wala nga dégg nga diw ci nangam ci rajo bi wala naa woo diw mu jëndal ma kër téléphone bi nga koy oowee su ko neexee mu jënd téeméeri plus bis bu yàlla sàkk mu dugal benn te bu mu la dugal. xëy na peut-être boo ko amul boo ko woowee doo ci doo doo ko ci mën a jot nga dund lu mel noonu nga nekk jaaxle mënatoo woo say mbokk parce que écarté woon nga leen ci dugaloo leen ci mënatoo yebal kenn te mënoo bàyyi sab liggéey ñëw émigré yi yeewu leen ci téléphone yi ñu leen di wax dugal leen xaalis dugal leen xaalis dugal leen xaalis dañ leen koy wax ah réew mi dafa toj xàppatiku te bala ngeen koo xam da ngeen fii ñëw la tubaab di dundee ci jub la tubaab di dundee ci leer la tubaab di dundee ci ñàkk mbuxum fekk ci nit ku ñuul rawatina ngay senegale moo fi bari yeewu leen loolu dafa bokk ci programme bi wax naa leen nit dinañ ko gën a yaatal képp koo xamante ni da ngay jaay kër moo xam nga bokk sikap moo xam nga bokk feneen ak feneen bëgg nañu am en contact ak yow su ko defee fan la ñuy jaar ba leeral nit ñi naka la ñuy def ba am kër goo xamante ni dinañ ci dëkk ak jàmm ak salaam waaye itam duñ ci am benn problème mbokk yi tàggu naa leen fii jox leen rendez-vous suba. ñu dellu si waat àndaat ak yéen ci waxtaan wi di jaajafal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggalu nag képp koo xamante ni tooñ nañu la ndax defar rek moo ñu tax a jóg delloo si waat xel yi moo ñu tax a jóg waaye rafetal jikko yi moo tax a jóg ba ëllëg bu ñu jàkkaarloog suñu borom du ñu am benn jeexi jàq wala boog lu néew lay doon loo xamante ni mënees nañu ko jéggal kon suba incha allah ñu dellu si waat 11h 12h ci jeexitalu semaine bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fi amaanillah jaa ngeen jëf